pour man victoire ce serait trop dit wala boog trop tôt même à dire xam nga parce que il faut gain de cause d'abord parce que dafa am loo xam ne yàgg nañu ko gis cest à mooy mooy mooy euh, mooy li nga xamante ni lu am la lu existe la peuple bi peuple bi ñoo doon xeex am yaakaar lu ñu yaakaar c'est dañu am yaakaar yaakaar boobu nag dañuy ñaan yàlla bu bañ tas parce que jàpp nañu am nañ indépendance pour ñun tey bisu indépendance bi pour ñun ñii ñoom ñu am accès ci pouvoir bi indépendance dañ ko yaakaar na te rikiwaay ñoom bu ñu tas loolu moo solo parce que loolu la quoi léegi nag yenn yi moom ce serait am nañ victoire am nañ ndam yooyu pour man loolu c'est trop tôt parce que ay acquis ay ay ay gain de cause mooy tax mooy tax ñu ne voilà peut-être démocratie moo am victoire wane nañ ni Sénégal dëkk pays démocrate la parce que peuple bi mooy le peuple est souverain loolu wane nañ ko mais femme yu bari yu des ci ginnaaw ndax peuple yàgg nañ ko nax te politique dafa doy waar bu ñu def quoi c'était pas facile mën nañu wax ne par exemple bu fekkee dinañ nekk si euh, est-ce que nekkul ak loo xam ne c'est impossible c'est plus possible dans dans dans ce pays là nekk mooy euh, bu dellu si parce que en fait Macky problème parce que dafa ñëw fekk dafa fekk acquis démocratique mu ne da koy dindi. loo xam ne peuple dañ ko xeex ba gañe ko ba téye ko mu ne da koy jël loolu moo ko sonal moo ko fekk boo seetee mooy président bi ëpp problème ci président histoire président ko c'est-à-dire ni mu woon président sonne wu ko ci ci ci ci ci président Sénégal non mais Macky Sall li mu dund kenn dund qu'on se dise la vérité quoi Macky li mu dund si régime yi amul benn président bu ko tudd nañ waxante dëgg quoi li fi xew ci nguuru Macky Sall musul xew Sénégal vraiment léegi nag loolu leçon la pour ki nga xam mooy ñëwaat topp si moom surtout ñi nga xamante ni peuple bi dañoo tuur seen deret sacrifice seen àdduna ñu bëri dee xam nga tëdd si bàmmeel kon ñoom dañu am sas bu yan bu diis bu nekk seen kaw. no man sama attente man. non man sama attente d' abord mooy mooy respect man moom laay wax dama koy répété waat rek gis nga fii Paris ne s'est pas en un jour yàqu-yàqu cent ans la ñuy defarandoo donc il faut peuple bi comprendre loolu mais man li may xaar ci ñoom mooy respe gis nga sénégalais boo ko respecté loolu lépp ci bi respect la nekk. sénégalais boo ko respecté rek jeex na looy dugg nga wax leen ko looy génn nga wax leen ko nga xam ñi def fi teg yow nga xam nga war moment bi nga war a waxee ñoom nga wax ak ñoom ba nga leen rendre compte nga xam ne ñoom ngay liggéey parce que ñun suñu problème ak suñu jiiti loolu la woon au fait manque de respect waaw loolu moo nekkoon suñu rupture boo xam fa nekkoon suñu diggante ñun benn barrière bu nekk suñu diggante ñun ak suñu autorité waaw